magi démb nan la ñu daan dundee ak alquranul karim nan la ñu moye woon ci alquran jafandu ci alquran waaye yemu ca ñoom ñu daal di bind lu ama am solo daal di ñuy dénk alquranul karim daal di ñuy wan yoon wi nga xamante ne ñoom aw nanu fa ba texe pour ñun ñu mën caa teg sunuy tànk yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala yërëm leen rahimahumur rahman tey nag ñu dellu si waat fii ci réew mi fas yéene waxtaane ki nga xam ne mooy maam sayidil xaji malik si rahimahullahu subhanahu wa taala ñu xool digganteem ak alquran ak yenni dénkaane yi nga xamante ne dénk na ko njabootam nan ñu war a nañu war a jàppee alquranul karim ak nanu war a dundee ak alquranul karim ndax maam Seydi El Hadji Malick xamle na ne bëgg alquran rekk doyul bëgg yonent bi rekk doyul li jaadu mooy nga bëgg alquran bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nga góor góorlu daal di koy jëfe nee ne bëgg rekk te jëfewoo nekkut loo xamante ne luy njariñ doomu aadama yi la wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnata almuxtaari taxtanimi nee na nekkul luy jëriñ nit ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek waaye nag nee na ñu jëfe li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ ko waxee comme xadisu ya aïcha radiallahu taala anhu anha bañ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jikko moom mu nekkoon alquranul karim kon jëfe alquran moom moy li nga xamantene ne mo war ku nek comme ni nga xamantene non la ko mam Seydil Hadji malik si waxe kon tay dañuy jema xam lan lañu ñu digal ci alquran waye mom lan la bindee alquranul karim fas yéene tàgg alquranul karim ñun ñu daal di góorgóorlu daal di jëfe alquranul karim bobé nga xamantene mom la mam Seydil Hadji malik digle ñukay amé fi ci kër gu tedd gi nga xamantene kep ko xamantene soppé ne soppee alquran nga kep ko xamantene yaangi yaa ngi yëngu ci alquranul karim am nga wal ci kër gi nga xamante mom moy la maison du Coran au Sénégal képp ko xamante ne alquran ñor na la ci bëgg alquran ci jëfe alquran ci bëgg dund alquranul karim kon ci kër gi nga bok kon mom moy suñu jotaay bi nga xamne ne moom mooy jotaayu asalaf ma alquran mam Seydi Alxaaji mak waxon ne إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والسدم إن القرآن وهو إن القرآن إن القرآن من قراءة ابن كثير كون فوفي تي والو خم خم خم خم قراءات دا نان كون مام سيدي الحاج مالك سي ني جاب ني ماغ ني ني وون لين تي قراءات كون فان لا ورا مانا خامي لول بامو واي لي ني فاتقوا الله ويعلمكم الله رجل لين يالا يالا خمال لين ماغ ني دانيو راغالون يالا لول يالا دا دي لين خمال ليپ لو خامني خم خم غو سيل لا خم خم غو جوب لا موم ان القران نك القران هو الميزان موم موي نقطو واي نيت كي موي بالانس دومو ادم kon nit ki lépp lu muy wax na ko natt ci alquran lépp lu nit ki di def na ko natt ci alquran fépp fu nit ki di jëm na ko natt ci alquran lépp lu muy sol na ko natt ci alquran natt moom mooy lan nga xool ndax dagan na nga def waaye alquran su teree nga daal di bàyyi kon duwal misaan loole lay teg lépp lu nit kiy def rek na ko teg ci balance u alquranul karim mu xool la ko ci alquranul karim wax su fekkee ne alquran jox na ko ca ndigal mu daal di koy jëfe waaye su fekkee ne alquran daf ko koo tere mu daal di koy bàyyi kon mam Seydi Hadji Malick ne nit ku nekk na natt boppam ci alquran soo xoolee sa cofeel ci alquran su fekkee bëgg nga alquran daf lay won sa cofeel ci yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa mel ni fii moom mu ngay junju waxu saxaabi bu tedd boobee nga xam ne mooy Abdullah ibn Mas'ud comme dama leen ko waxee woon képp ku bëgg xam ndax bëgg nga yàlla ak yonent bi xoolal sa diggante ak alquran soo bëggee alquran bëgg nga yàlla bëgg nga yonent bi waaye soo bañee alquran bañ nga yàlla bañ nga yonent bi mel ni maam Seydil Haaji Malik wax jooju lay junj di ko woy nee na alquranul karim na nga koy toppee na ngay jëlee sa bopp teg ko ci balance alquran tax nga xam la nga xamante ne moom nga jàpp ci cofeel ak nameel gi nga xamante ne moom nga am ci alquranul karim mu ne yaa man yuridu jinaan alxuldi yaskunuha faqad diman talaba almiftaxi tuxtarami tey jii ñun ñëpp ñu ngi fii ci àdduna ñenn ñi sonn natt bu nekk di dal suñu kaw koo gis la gën a rëy nga koy ñaanal yal na la yàlla dugal aljanna ku fi dee li ñu njëkk a wax yal na ko yàlla yërëm te ku yàlla yërëm dëkkuwaay mooy aljanna yal na ko yàlla gërëm ku yàlla gërëm dëkkuwaay mooy aljanna yal na yàlla yëkkati ay darajam fan ca aljanna yal na ko yàlla dugal fan ca aljanna yal nañu yàlla boole ak moom fan ca aljanna maam Seydi El Hadji Malick nee na yow mi bëgg dugg aljanna yaa man yuridu jinaan alxuldi yaskunuha yow mi bëgg dugg ci aljanna yoo xamante ne foofee ngay sax aljanna yoo xam ne soo duggee dootoo génni da ngay suur dootoo xiif da ngay am dootoo ñàkk da ngay wér dootoo wéradi waxoon naa leen góor ga dañ koo laaj lan moo gën a neex ci biir aljanna nee na nga xëy kenn du la laaj dépense xam nga jigéen ñi léegi dañ lay topp suñu encaissé gul rek duñ la may dara mais Seydil Hadji malik nee yow mi bëgg dugg aljanna fa qaddiman talaba al miftaaxi tuxtarami nee na jiitalal joxel li nga xamante ne moom mooy lan mooy caabi ji ku dul jàng alquran mënoo dugg aljanna ku dul jàng alquran nooy toppee yàlla parce que laa ilaha illa allah mooy miftaxul janna te laa ilaha illa allah moom mu ngi ci biir alquran alquran moo lay wax ne lii mooy laa ilaha illa allah ci biir fatiha rek waxoon naa leen ne fatiha la ca nekk dafa yaatu lool tawxidul uluhiya tawxidul rububiya tawxidul asmaai wa sifaat lépp da nga koy fekk ci alquran lépp loo xam ne ibada kaamila da nga koy fekk foofu iyaka naabudu lépp loo xam ne istiaada la wala lépp loo xamante ne luwaad la ci dellu ci yàlla bur bi subhanahu wa taala lépp dañ koy fekk ci fatihatal kitab fatiha rek la nga cey gis rek kenn kenn xamu ko moo tax Maodo nee ne yow mi nga xam ne yaay sàkku aljanna maa ngi lay dénk alquran ما نقدر القرآن ما مسيد الحاج مالك نيني ممكن دينك جبر جدي القرآن سنو نوية القرآن داري كوي جفة نيوم نيب بسوبا إن شاء الله تعالى داني دوغو لغا خمانتين مموي لن مموي الجنة ما مسيد الحاج مالك لن نتي وخام حتام وخاتون تي كفى القرآن الذي كفى القرآن الذي آياته بهرت كل العقول لأرباب البلاغات موني كفى القرآن الذي ملني دفن لا يومي بغا وقتان يومي غا خمانتين جبوتم غا soit nga nek talibem wala nek sëtam wala nek sopem ñu wola fenn la kay waxtanal ñu kay nga waxtanal ñu kay defal ñu conférence nga ne legi ci bantem thème la ñuy waxtaane wala nga dem ba tok lan lay waxtane ndax da nga wara tok di label nit ñi rek est ce ay junni nit dañu daje pour nga len di label est ce ay junni nit dañu daje pour nga tok wax 30 minutes yo xamne waxo alquran nga ne legi bantem mo gëna bax a baax Maodo ne la kafal quranu alladi doyna alquran bi nga xamantene ayatuhu ay kimtanam ay kawtefam baharat jaxalna na kullal uquuli sen borom xel yi manam alquran dafa yim kep ku am xel kep ku am xel ngay xalat nga xol ci walu ijaz ci walu côté yep da ngay gis ni alquranul karim dafa jaxal ñep mo do ne nit ki mënoo fent fent ba fent lu melni alquran mënoo ay ci wax ba ay lu melni alquranul karim kon nee ne soo toogee rek جلال القرآن الكريم أبي الكامل جنجا جاكار لو أكنيني واختانا لن القرآن كفى القرآن الذي آياته بهرت كل العقول لأرباب البلاغات حمغا خيط غنك أكلا لن يالا جخون تي كيمتان ويجنجا خمنا نيوم يوم مكة قريش نو داكونا وقت جمانو جوجا تيجي عرب لنغو عرب أمول لنغ بومل نيموم أمو لنغ بوك أبا أي كولتير أمو لنغ بوكو غنياتو نخمنا نيوم نيو أمون شعراء تيوالو ارتجال lépp loo xam ne wax la ci wàllu balaaga ulumul balaaga ulumul maani ulumul mantiq nga xam ne ñoom ñu yéeme woon ci lool waaye yàlla tëkku leen ci alquranul karim ne leen su fekkee li ngeen di wax dëgg la ci yéen kaay leen ngeen dajale nit ñeeg jinne ñi ñoom ñëpp ngeen fental ma fukki saar mënuñu ko yàlla tëkkuwaat leen ci aw saar loolu daañ ci ñëw ci buntu boo xam ne baabul ijaz insha allahu taala ijazatul quran wala mujizatul quran al karim insha allahu taala dafa am ay mujizat al lugawiya ak ci wàll gu nekk kon Maodo nee ne maam Seydil Hadji Malick nee ne lu waaye di wax Alquran doy na fu waaye di dem Alquran doy na nga laaj ko ndax foofee baax na wala déet ku bëgg ay aylu kaay ay aylu ci Alquranul karim gi ku dajale ay nit maam Seydil Hadji Malick kafa alquranu alladi ayatuhu baharat parce que léeg nga dégg ci tànt yi wala ci jotaay yi nit koo xam ne bëgg na nit ñi yéemu ba ñuy fent ay qisas yoo xamante ne subhanallah amul ci téere yi nga xamante kutubu siyar yi amul ci téré ci yar yi amu ci fi fi ñu bind bibliothèque yonent bi manam biographie yonent bi te ay qissas yo xamne ben amu ci wala lélé dañuy nekk ci ay téré yo xamne ben wéru ci leer na leen leer yàlla ni wéruñ tay ji ko ci gis fexe na bar rab ay nettali yoo xam ne ay léebi ay janaxa kii ay muusa kii ay yu nekk ngay dégg ay ganaar ak rek ngay gis ngay dégg ñu koy wax waaw ganaar bi def na lii muus mi def na lii mbëtt mi def na lii te nee nga te dañuy wax ba pare léeg-léeg ñu askan la ko ci maam Seydi El Hadji Malick maam Seydi El Hadji Malick nee ne kafa alquranu alladi ayatuhu baharat كل العقول لأربابه لأرباب البلاغات نين دويلو لن القرآن الكريم تانتي ننكو دويلو تجتاي من هو الكتاب الذي يسعى ويشفعنا فعدنا ربي من أهل الشفاعات نين هو الكتاب الذي القرآن موي تيري بيغا خمانتيني يسعى خمغا باتو سعي لما لن أخون تيري إمام الشاطبي نين يسعى ويشفعنا بيوم القيامة فو نيب دي جاخلي مام سيدي الحاج مالك لول لي جنجو في فنيب دي جاخلي nga yaakaaroon bàyyi mu gis la daw nga yaakaaroon yaay mu gis la daw nga yaakaaroon sëriñ mu gis la jox la doq sëriñ bi jox la ginnaaw koo yaakaaroon mu jox la ginnaaw fa ngay jaxle jékki-jékki alquran daal di ñëw nee na yasaa dafay ñëw wa yashfauna mu daal di ramm ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon jëfe يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ينتبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة القرآن شافع مشفع داي تاخو دي رامو تي كومو جوخو ني رامو نلا يالا بالا دوغال لا الجنه موتا ماو دوني في مام سيد الحاج مالك رحمه الله نيني القران يسعى ويشفعنا داي نيو مودادي ني رامو يال نا نيو بوك سي نونو جامع غوغي يشفعنا مودادي ني رامو يونتي ني كو القران رامو داي رامو تي كومو رامو يالا بالا وماحل مصدق ku alquran la yol yowmal qiyam rek mu yey la waaw te lu mu wax ci nit ki lu mu seede ci yow rek yàlla gëm ko kon man jaalahu amamahu ku ko teg sa kanam daf lay wommat ba yóbbu la aljanna waaye ku ko sànni sa ginnaaw daf lay puus ba bëma la ci kàmbu sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis pour rek fi baatu yashfauna bu maam Seydi Alxaaji Malik si wax man shafa lahu lquranu yowma alqiyamati naja yowma alqiyam képp ko alquran rammu rek nga daal di mucc te mucc liñ tuddee daw baraw maanaam rëcc rëcc kooku rëcc na rëcc du am mukk lu dul ci bërëb boo xam ne danger moo fa ne masalan ngeen toog ay gaynde daal di ñëw kon boobaa ku fa génni mucc ngay wax da nga naan man mucc naa ne jawtu waaw mucc naa kon yowmal qiyam noonu la mel foofu nag yonent bi nee ne ku alquran ñëw defal la intervention da ngay rëcc dugg aljanna nga daal di fay sax kon maam Seydi El mal Malick nee ne huwa alkitaabu alladi yasaa wa yashfauna mu ne fa uddana lima leñu rabbi yow suma borom min ahli shafaati ca ña nga xamante ne daañu leen ramm keroog yowm alqiyaam yaqulu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man qara alqur'ana fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu llahu aljannata wa shafa'ahu fi ashratin min ahli baytihi kulluhum qad wajabat lahum annar nee na ku jàng alqur'an man qara alqur'an ku jàng alqur'an fastadharahu mu daal di koy mokkal mokkal alqur'anul karim fa ahalla halalahu mu daal di daganal la alquran daganal lu mu dégg ne alquran daganal na ko mu jéem ko jëfee wa xarama xaraamahu mu xaraamal te gëm ne la alquran araamal moo araam lan moo cay topp adxalahu llahu aljanna yàlla daf koy duggal aljanna yontu bi nee ne ku def lii yàlla daf lay duggal aljanna yemu fa de nee ne wa shafaahu yàlla daal di koy ràmmuloo fi ashratin ci fukk min ahli baytihi ci ñoñam maanaam ci waa këram kulluhum qad wajabat lahum nnaar fukk ci ñoo xamante ne waroon nañ dem sawara yonent bi nee ne yàlla daal di koy may mu ramm fukk ci njabootam yóbbu leen aljanna lii doo ko amee ci barkeb sërigne diw doo ko amee ci ndax nii nga sant doo ko amee ndax fii nga dëkk yonent bi nee na ci alquran alkarim nga koy amee te maam seydil xaaji malik dafa ñaan yàlla fa uddana lima lañu rabbi yow yàlla min ahli shafaati ci ña nga xamante ne alquran di leen ramm kon yàlla nanu ko yàlla defal maa ngi koy ñaanal suma bopp ñaanal la ko yow mii di seetaan waaye képp ko xam ne gëm nga alquran doyloo alquran di jàng alquran di bëgg alquranul karim yal na yàlla boole la ci ñi nga xam ne alquran dina leen rammu dugg leen aljanna mam sidi xaaji malik nee ne yaa man yuridu mafazan gayra munqatii ati awamirahu fi kulli saati nee ne yaa man yuridu mafazan yow mi nga xam ne da ngaa bëgg ab texe goo xamante ne gayru munqati du dagg parce que aljanna ku fa dugg xaalidiina fiha da ngay dugg dootoo génni ne na yow mi bëgg texe texe aduna ak àllaaxira boo xam ne du dag mukk ne ne atigi awamirahu topal ay digley alquran ndigal topal ndigalu alquranul karim waaw topal ndigalu alquran fi kulli saati maam Seydil Haaji Malik ne ne ci waxtu yep nak ne ne ci waxtu yep waxtu wu nekk parce que léeg-léeg nga gis nit koo xam ne dafa am moment yu muy topp alquran rek moment yu mu ko dul topp maanaam seen gëm daal wax dëgg fi yàlla ay jamono la périodique la maam sidi Hadji Malick leen da nga topp alquranul karim waxtu wu nekk mooy tax nga am texe goo xamante ne du dagg mukk te du doog mukk mu ne walzam qiraatahu fa fi luzumi bihi naylu naim alladi ala almaramati Maodo nee ne walzam na nga takkoo te saxoo qiraatahu jàng alquran moo tax ma leen di wax ne jàng leen alquran dama koy tënk ci wolof saa su nekk wax naa ko ci ay vidéo yu bari du samay wax waxu yàlla la waxu yonent bi mag ñi daal di koy woy daal di koy bind ci façon bu nekk jàng leen alquran su ngeen xamee lu muy firri jàng leen ko su ngeen xamut lu muy firri jàng leen ko jàng leen ko suba jàng leen ko ngoon jàng leen ko guddi jàng leen ko bëccëg jàng leen alquranul karim téere boo xam ne da koy tiim di jàng di déylante ak borom bi subhanahu wa taala waxtu wu nekk ngay am tuyaaba goo xam ne du jeex kon Seydil Haaji Malik neen képp kuy jullit مودونين والزم قراءته سخل الملازمة موينغا تقولا جنغ القرآن الكريم ففي اللزوم به نكن تتقو جنغ القرآن نيل النعيم أم الجنة جنغ خمني موي الجنة خي والألك ديغا خمني أعلى المرامات لواي أم يوم القيامة أم الجنة أم دارة جيسنا في جوتاي بني لوحن ليلة تار من لخو ميت توتي أك أسامبل بومن نك waaye ay ku tardé aljanna wallahi tardé nga loo xam ne doo ko dootoo ko dabaatal mukk ku tardé aljanna gu neex gii Maodo nee ne ku bë ku bañ a tardé nag walzam qiraatahu sa xool di jàng alquranul karim sa xool di jàng alquranul karim nga xam ne waxtu wu nekk time is tiyaaba guddi ak bëccëg suba ak ngoon ngay am tiyaaba ba nga xam ne yàlla su la fiy jëlee day fekk li nga am ci tiyaaba bari na lool kuy jàng alquranul karim suba ak ngoon guddi ak bëccëg dootal jëw fu gaa yi toog su nekkee ci oto bi jël sa jukki bu ndaw di jàng su ñu toogee di wax waxi aduna toogal ngay jàng alquranu karim su jigéen ñi toogee di natt toogal nga jël alquranu karim donte ñaari saar nga mën nekkal di ko baamu rek di ko baamu ndax noo koy gën di baamoo alquran day gën a neex day gën a taaru parce que wa tardaaduhu yasdaadu fihi tajammula da nga koy baamu muy gën a neex lépp lu ñuy baamu day day sàppi ba mu des alquran da nga koy baamu muy gën a neex te ni ngi baamu alquran alquran day rafetal nit waxtu wu nekk ma wax leen ko ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته